xam nga jamono ji nekk rek <laughs> ak luy xew dañuy doxal comme ni jamono di doxee léegi nag méthode bi dafa xaw a changé tuuti dañuy bëgg képp koo xam ne nii ah, am nga question boo xamante ne nii ñor na la wala nga bëgg ko xam ci diine l'islam ji ah, ak ci lu mu ci mënti doon rek ah, léegi mm-hmm. da ngay def sa vidéo nga yónnee ñu ko su ko defee oustaz dinañ ko teg ci télé bi nit ci gis ko dégg question bi comme ni mu waree mhm. léegi oustaz dal di ciy tontu damay joxe numéro bi rek képp koo xam ne rek am nga message boo bëgg a lancé wala nga jàllale ko ci euh, wàllum diine masala gi da ngay def 77 272 55 59 77 272 55 59 nga envoyé ñu sa vidéo laaj sa question su ko defee oustaz daal di ñëw tontu noonu rek la ñuy di def parce que demoon nañ ci mbedd bi mhm. euh, jàkkaarloog askan wi euh, ñoom itam ñàkkul ni amoon nañ question yoo xamante ni nii bëggoon nañ ko laaj dañuy dem xooli première question bi su ko defee ñu dellu si si plateau waaw mais euh, li ma bëggoon a laaj maanaam kuy dem bay tukki ma am war a julli yenn saay mu fekk la ci yoon wi coo mënuloo wàcc julli ci balaa ngay yéeg mën nga mën ngaa yéeg ak coono boo xam ne war ngaa mën a julli ci mën ngaa sonn nga ne xanaa ma dellu bu suba comme loolu nañ lañ ko mën a defee daal waaw lan la ci lislaam wax quoi incha allah loolu ma loolu daal bëgg naa ko ñu leeral quoi incha allah di leen di ñaanal bu baax a baax yokku ba yëg ko bu baax wala saawaan baawaan di leen kontaane. voilà oustaz mi ngi noonu. waa allah Adja ma jigéen mi ngi ziara bu baax a baax a baax a baax mu mel ni laaj na masala bu am solo te mu jëm ci wàllu julli. te ku ne xam na ni julli asalaatu adamul ibadat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi julli nag nekk loo xam ni audience la sa diggante ak sa borom nit nag boo amee audience sa diggante ak sa borom war ngaa géem a lijjanti audience boobu naka nga ciy demee mm-hmm. lépp lu mu làmbool lépp lu nekk ci biir julli war ngaa mën a profité géem koo xam moom dafay laaj rek julli yoo xam ni ndax da ko ndax euh, dajale ñaari julli wala ñetti julli wala julli goo xam ne leer na ko ci tisbaar la jullee Dakar léegi mi ngi jëm Thiès leer na ko ci diggante bi balaa muy egg tàkkusaan jot naka lay def ak julli googu. non daf ne. bu bu sax ba question far waaw dafa xaw a lëj daf ne. dafa laa leeral la. <laughs> voilà mu dafa nekkoon si yoon waaw. julli dab ko ci munul julli ci yoon bi nee mu dem ba àgg këram waaw julli yooyu dajaloo mu yëg ci yaramam coono boo xamante ne nii munul taxaw concentré wu pour julli waaw mu ne nee na comme saa mu bàyyi ba suba ba noppalu ko <laughs> ba xelam dal ah. ndax mu mën a concentré wu julli loolu lan bien yow nag boo bëggee dëgg-dëgg mhm. yaa a leeral question bi sax moom li mu wax su boobaa chariatul islam dafa wax ne hmm. inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquta julli dafa am heure yoo xam ni moom lañ ko farataal su heure jotee def ko coono dab na la julliwoo tisbaar julliwoo tàkkusaan sariya mayu la nga egg naan damaa sonn nag damaa teyal damay nelaw ba yeewu soo ko defee def nga lu xaraam booy julli te mënoo teewlu nag. Mm-hmm. fekk nga. booy nelaw tuuti. parce que mën ngay julli sax di for ba di jaxase. saa waaw. bu tollee foofu nag. dégg mën la julli dafa am ay dururaat. am muxtaar. Mm-hmm. julli dafa am heure. yoo xam ne bu jotee dañ naan la heure bi jot na. tisbaar dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yam saan am fu mu tàmbalee am fu mu yam timis am fu mu tàmbalee am fu mu yam léegi dajale ngay julli charia nee na na nga fay julli yi du xool yow da ngaa feebar même boo tawatee xanaa nga dem ba perte réseau nekkatoo. non moom dafa gëmmentu. moom laa lay wax gëmmentu teewul julli farata la par force la da ngaa war a bàyyi gëmmentu bi fële ndax audience la buy dox sa diggante ak sa borom. li la diine wax bu dee charia nga ma laaj ma lay tontu. li lislaam wax mooy na dem. waaw mais man damaa dégg ni julli da nga war a teewlu. mais bu dee kii julli noonu yàkkamti naa ko moo tax beneen saa yi nga gis julli yoo xam ne. waaye da koy taxañ. parax parax parax. waaw julli googu. waaw est-ce que boobu baax na est-ce que bëgg koo teewlu. saa loo jàngadi jàngadi dégg nga. fa waylun lil musalliina. alladina an salaatuhum saahun. Mhm. alladina an salaatuhum saahun xam nga ñoom ñan la. mooy question bi mu laaj. mooy ñi nga xam ne suñuy julli seen biir julli dañ ciy dugal ak tayal ngir lan gëmmentoo leen dal ngir lan dañoo sonn ngir lan dañoo liggéeyoon ba wàcc ñoom daal mënuñoo teewlu julli dañ koy teewlu teewlu dal googu ngay def dafa bokk ci farata yi te boo ko deful sukkaa sa yoolu julli day wàññeeku boo ko deful doo am sax julli far parce que farata la atuma nii na ñëpp xam nañ ni dafa bokk ci farata yi nga xam ni farata yi julli la mhm. su boobaa charia li mu ko wax mooy na dem julli ji charia boo feebaroon ba tëdd sa lal boo mënul ndeyjoor parce que julli boo feebaree mënoo taxaw dañ naan la taxawal wéeru nga feebar mënoo toog ñun la toogal wéeru boo ko mënul ñun la tëddeel ndeyjoor julli boo ko mënul ñu tëddeel càmmoñ julli soo ko mënul ñun la jaaxaanal nga julli ci sa xel kon xam nga ni chariatul islaam ah. amul fu mu la mayee rek. nga noppalu Adja euh, Madji. leer na kon oustaz euh, numéro bi 77 la 272 55 59 ngeen envoyé ñu seen vidéo via WhatsApp su ko defee rek oustaz daal di euh, tontu question yi ba mu leer dañuy demaat régie rek ànd ak du Top mu tegal ñu question bi ci topp su ko defee ñu dellu si waat. man ci taalibe mi laa bokk ok man jébalu naa Saint bu Diop ak ma jigéen maa ngi leen nuyu di leen ziar. di laaj oustaz euh, diine lan la wax ci euh, ñi nga xamante ni dañuy wër di yàq deru nit waaw di di di tuumaal nit ci si loo xamante ni dara amul ci dëkk bi vraiment ni mu bindoo instant bi nii doy na trop di wër di yàq nit nit ñi di jël di filmer nit ñi di leen dugal ci réseaux sociaux yi loolu ñaaw na trop waaw maa ngi laaj oustaz daal lan la diine wax ci loolu mu nekk mu nekk lu xew torop nag parce que mm. léegi yàq der bi surtout mm. di vidéo di weer nit yi te yàlla suñu mm. borom moo suturaal doomu aadama saa loo tamit lu jar a wax la waaw xam nga euh, ma jigéen mm-hmm. yàlla nañu yàlla musal ci jikko ju ñaaw allahumma amin yonent bi sallallahu alayhi dafa am ku ñëw ni ko euh, sooy bu dee day julli sooy bu dee day woor sooy bu dee lépp lu ñu wax rek ci yoonu yàlla ma ngi koy def mm-hmm. waaye wa fii lisaan yi shay'un yu'di naasa Seydina Muhammad ni làmminam tooke la ndax làmminam du ko teggi mukk ci deru nit ñi gis nga bu julli jotee mi ngi julli bu woor jotee mi ngi woor bu joxe asaka mi ngi joxe asaka bu def jot defee lu baax mi ngi jot mais problème am mënul jël Sa Ndiogou wala mënul jël ma jigéen rek installé ko ci xolam dafa am ci nit ñoo xam ni soxor dañ ko dañ ko naan ma jigéen ñoo xam ni iñaan dañ ko naan ñoo xam ni def lu bon ak wax lu bon ak yàq deru doomu aadama ñoom jàpp nañ ni loolu ndékki la jàpp nañ ni loolu añ la jàpp nañ loolu reer la sooy te jullit am na loo xam ne soo koy def bawal julli nekkatoo jullit am na jikko yoo xam ne bu nekkee ci yow jàppal ni yaa jàppee sa bopp jullit waaye nekkatoo jullit xam nga ni toog sa kër jékki-jékki am vidéo bu ñu la def nga toog vidéo sa bopp sa xol sedd jàpp deru doomu aadama dama koy gis fan ci ci tiktok bi. koo xamante ni bitim réew la ne xaw ma chocolat tudd xaw ma chocolat. aadamoo da ngay gis ma koy def façon genre yooyu xeet yu bon yooyu nga xam ne dañ ko téye doomu aadama. di ko sippi téye ja doo jabaru ballagay bi amul kàdd gu ñaaw boo déggul. saa mu yëkkati ko façon yooyu. di jël lu bon di jël lu ñaaw di tudd cër boo xam ne ëpp naa tudd. ñaaw na di jël jëw xola wala bi gën a garaaw mooy tuuma. mais soxla bu tuuma dafa doy waar da ngay gis koo xamante ni tuumaal nañ ko ba yàq deram yàq deram ci lan waxal ko lu bon lu mu deful da ngay gis jigéen joo xam ne góor day baax jël décision ni da koy takk dama dem ba desul lu dul une semaine ñu war a takk-takk gi ñu joxe information ca ñay takk ba takk googu ñu annulé ko yonent bi nee na yow mi def loolu dee moo la tey dem safara. waaw mais oustaz am naa benn question tamit. Ah. waaw xam nga parce que. Euh, tey jii bu fekkente ni dañu war a takk benn nit. Mhm. am ku dem ci imaam. Mhm. fekk ñu ngi ko bëgg a kii noonu imaam ba war a maye. Mhm. léegi kooku ndekete ndaw sa wan na lor. am ku dem ca imaam xam na ni imaam yëgu ko. ne ko ndaw si ñu lay wax ne pour nga maye ko bés sàngam de. Euh, wan na na lor. loolu mu def noonu loolu moom lan la ci diina di wax. jërëjëf saa xam nga waajooyu sooy bu bokkut ak ki may wax. Hmm. waajooju ñëpp koy mere. waajooju ñëpp koy jéppi. parce que dugal na ci nopp imaam information boo xam ne réalité la. Mhm. su fekkee saa ni mu posé question. li mu wax moom réalité la lu am la. jàngoon nga xam nga chariatul islam bu takkum sëy dafa am lu ñu tuddee surutul wujub mhm. am lu ñu tuddee surutul sera te yooyu saa dafa jar a xam. mooy yoo xam ne wareef la ci biir sëy bi war nga ko xam ak yoo xam ne day dëggal sëy bi wareef bi exemple rek laa ci yox can mënul ñàkk dëggal sëy bi mënul ñàkk ay kilifa daa di ciy teew. waaye dafa am loo xam ne dañoo bëgg nga laaj ko saa bul mayee jabar mukk bul mayee soxna si jàkk wala ci jumaa saa te laajte woo ki ngay may ndax amul lu mat ñeenti jabar bis bu ne la am na ñeent bañal ba dugg boîte vocale bul ko maye charia maye mayeetu la ko laajteel xale bu jigéen bi soxna bi ndax kii ñuy takk amul soxna bi boo xam ne dafa néew doole kon li xewoon ci Ibra Italie bi dem ba bëggee ndaw sa nu mu tuddati ndey xadi bi mu ko bëggee moom moom moom de Pape Demba ñuy xaar koo xam ne Italie la jóge dugal jëfa dem ba dugaloon doom wax ko ay kilifaam wax ko ay papaam charia nee na loolu bu xasete xasee am amuloo droit nga maye xale bu jigéen bi parce que góor gi dugal na kàddoom ba am na nañu yaakaar ni diw mi lañ ko war a may est-ce que yaa ngi dégg ma jigéen yaa ngi tëb sama question de. ñëw non maa ngi sa question. ngi sa question. yaa ngi dégg da ngay su boobaa nag. bu fekkente ni dafa wan lor. waaw. benn imaam imaam bi loolu mu xasee dégg. waaw na taxaw devant le public. moom imaam. na taxaw devant le public. mais waa ji dana ko bu ma ci feeñ. wala dëgg. na taxaw devant le public ne man imaam day. jot naa ndigal. jot naa information boo xam ne tënku naa ci ba sariya nee na boo mayee xale bu jigéen bi. parce que nee nañu xale bu jigéen bi dafa. que loolu du nekk weer encore. non je ne sais su boobaa imaam laa la wax day teggi responsabilité jox nañ ko information. kon léegi du maye sëy bi. nu muy maye sëy bi imaam léegi warta dem saytu ndax. loolu dëgg la wala du dëgg da koy saytu waaye day ñëw rek ne du ma maye sëy déedéet. dina woo ci ñoom. kon kay waru ko def devant le public. déedéet dina woo ci ñee. woo ci ñii. xoola fa du xakaman min ahli wa hakaman min ahliha ñoom ñi dajaloo. di di yi. nga xam ne ñooy wàll yi ñooy kilifa yi ñoom lay woo ci ñoom ni leen jot naa information. mais bu parents yëgul ne amul suñu waxtaanee ba d' accord ci ñu ne ah nañ ko saytu de lii moom ñun xamee wuñ ko woon. Ah, mais si surtout ñu ne reporté nañu takk gi. léegi bu parents yëgul ne ëmb na nag. bu parents yan. yëgul ni ëmb na ñoom ñëpp xam ne ëmb na moom ku jigéen ki rek xam ne ëmb na. chariatul islam tënkul képp ko xamul. lépp loo xam ne xamoo ca dara. Mhm. charia tënku la. waaye tënku la nag. léegi man saa li ma bëgg a laaj kon. kenn amul droit. Mhm. gis jabaru jàmbur juy taxawaalu mhm. nga dénoncé ko comme ni l'islam di dénoncé lu bon. waaw xam nga l'islam dafa maanoo. jabaru jàmbur naa l'islam maanaam kuy taxawaalu koo xam dafa am jëkkër. l'islam te buy taxawaalu defe naa am na ay sart yu l'islam teg ci. ku am jëkkër di joxe sa bopp. waa waaye léegi ndax ma ne jigéen bu tollee foofu. ki toog dénoncé ko moom lan la ko. sooy bu mboolem xale yu jigéen ñi ne ci Sénégal am jëkkër am far di njaaloo. ñu charia rey na leen ba pare. Hmm. waaye yow mi nga xam yaa ko xam. Hmm. rakku jëkkër wala magu jëkkër wala nijaay jëkkër toppal enquête bi donc topp ko. noo koy toppee mais topp ko doucement. da danga koy topp ci secret waaw topp ko ci secret. <laughs> am noo communiquer ak sa grand bu dee attan na ko. Uh-huh. su la leeree ni soo ko ko waxee àdduna tukki. dafa la waaj a defoon. dafa ñëw ci yonent bi saa salaam. ni ko sama jabar de ci njaaloo la dëkk. Uh-huh. Uh-huh. bu dégg bëccëg day njaaloo. suba ngoon tàkkusaan yoor yoor sama jabar daal mënta yem ci man. Seydina Muhammad ni ko kaay. bëgg nga ko. mun ko yàlla xam na ni bëgg naa ko. waaye jikko ji ma nag naqar ji moom yonent bi ni ko jàppal sa jabar hmm. jàppal téyel sa jabar mi ngi njaaloo te yow moom rek nga bëgg bu la kenn tas loo sa sëy mm-hmm. bàkkaar bi moom la dee moo ko tey dem sawara te dañ koy raj mu tilis laa loolu nag nañ ko bàyyi xel soxna yi. d'accord bu ci xajee rek ñu demaat régie jëli beneen question bi daal di dellu si waat julit war na man lor boroomam wala julit buy liggéey nga jëlee ko ko palaasam jox ko keneen beneen julit ndax loolu lislaam lu mu ci wax Souleymane Diaw bëgg naa nga la nga firndeel ma loolu lislaam lu mu ci wax waaw beneen question bi maanaam ne julit nan la war a comporter woo ci biir julitam waaw Aïcha mi ngi noonu waaw ma jigéen waaw waaw li mu wax mooy euh, exemple laa joxe exemple laa joxe bu nekk fii di liggéey nekk fii di liggéey fii ci Walfadjri ni mu fi nekkee man Souleymane ma gis ko muy liggéey ma iñaane ko li muy liggéey hmm. moom jullit la man jullit laa ma dem ci suuf fexe ba wax keneen ci biir kër gi nañu jëlee sono yi ba fi mu nekk daal di ma fay teg man est-ce ngi dégg jullit boo xam ne dafa fex fekk nit ci place am mu fexe ba jëlee ko fa pour moom na toog ca place boobu mais nag li mu laaj. léegi bu dee kooku. moo nekk moo nekk ab lobby ci kër gi. waaw di yàq kër gi nag amu ma droit daal di koy boole ñu ñu kii ko. non yàqkat moom foo ko fekk soo soxee ko. <laughs> ah bu dee lobby bi dañu koo dara dénoncé. ndax suñu borom moom bëggul yàq. Ah. bëggul yàq kat ah. xam nga saa luy tas kër yi xam nga ko. suturaal naa fekk. moo yàq entreprise. suturaal naa fekk. day tasum kër. suturaal naa fekk. day tax pouvoir boo amoon da koy ñàkk ndax am na ñoo xam ne ñu nga baal ma ñu baal ma sooy bu làmbi fen kub ya yan ca am mu ngi ci seen biir armoire ñu tëj dañoo mën a wax lu bon loolu nag ab jullit du ko comporte woo Seydina Muhammad dafa wax ni alayhi salaatu wasalaam laa tabaaxadu wala tadaabaru wala taqaataaw wa kuunu ibaadallaahi ihwaanan bàyyi leen bañante bi waaye yow sukkaa yow sukkaa man Souleymane Diaw bañ gi ma lay bañ man sant la am fan laa ko teg yaa ngi sol sa baxa bu rafet mu yiw lool Boubacar kontaan ci lu may bayee ci yow nit da am xol bu yaatu nit da ngay am xol bu rafet da ngay yéene sa mbokkum julli al muminu lil mumini kal bunyaan yasuddu baadu baada yonent bi neen maanaam man li ma jubli mooy waaw exemple su ma déggee waa ji mm-hmm. est-ce que kooku l'islam war na ko ne ndax dafa gis ci société bi wala ci entreprise wala ci magasin bi wala fi ñuy liggéey koo xam ne ma ngay yàq mhm. maanaam li ñu gis ci kaw yàq lañ koy euh, def mhm. mais ci suuf ki ñuy xeex dafa am lu muy def moo tax ñu di ko xeex di ko boole est-ce que kooku dina ci am bàkkaar ki koy boole ñoom ñaar bokkuñu àtte ba tey waaw kii <coughs> ki bëgg entreprise bi dox mm. gis ku yàq entreprise bi mm. entreprise baa ngi dox lépp a ngi jaar yoon mais boo gisee ki koy yàq dénoncé ko ci kilifa yi nag bu jaree nga toog mu toog nga ne ko lii nga def yaa ko def tegoo ko ci yoon rafetul kilifa gi àtte mais moom dafa laaj ni. Mhm. ci feewu xam xam nga lu mu ci laaj quoi. comportement. nit ak nit jullit ak moroomam. comportement jullit ak moroomam. jullit ak moroomam yonent bi nee na laa yuuminu jàng ko sooxe bu jàng ko biir ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibba li nafsihi sooxe bu mi yëg nga ni su julleem du baax wooram du baax. daf dem màkkaam assuré wul fi léegi ni mu bëggee boppam bëggee wul ko yow loolu la yonent bi jàngale. loolu moo tax xam nga aaya ba xadis ba wala yaxilu lil muslimi an yaxjura aqaahu fawqa salaasin est-ce que xam nga ni sooy loolu nit ñu war nañ cee bàyyi xel amul benn jullit bu am droit xulóog ni trois jours maa nga ko wax ku ko def nekkatoo jullit trois jours nga noonoon teg nit. bu pexe amul yeneen bi tere tere na ko. nee na trouver leen solution maanaam oustaz ay sanction la wala da ngaa nekkatul jullit. non maanaam sanction la. lañ lay teg sanction la waaye génn goo. non génn goo yaa ngi ci biir. Ah, waaye dootuñu la considéré. koo xam ne bu lu mu def dañ koy may diis. waaw lu sew la. waaw déedéet <laughs> dañ lay considéré. koo xamante ni loo def boo waree am di sett ngay am wala si ci tuyaaba wala yaxelul la wax daganul mm-hmm. lil muslimi ci mbokk ci jullit an yaxjura muy gàddaay muy muy noonoon toog ak xaaw mbokkum jullitam foo ko salaasin lu lu lu dépensé trois jours. waaw jabar jëkkër ak jabar yi koy def nag. bàyyante. déet dañuy merente ay une semaine. kii bu tëddee xool yomal xiyaam mais booboo gën a bon. saa xiyaam jàmm. am ci nekk fii ah sa jëkkër day tëdd nii tëdd tëdd saa. waaw yow nga tëdd xoolal duubul lii. ni mu yaatu mais ni nga jógee entreprise ba dal ci néeg. <laughs> man li la dugal néeg ba moo ma jaaxal. mais moo ci entreprise. waaw mais ci entreprise ba dugal biir néeg. waaw waaw te déglu sax loolu lañ tuddee taawil. lu muy def néeg ba. ah nee ko loolu taawil. taawil mooy yaatal. yaatal ba ca néeg loolu parce que néeg bi. la bokk parce que kii jóge ci néeg bi moom mooy xëy dem ci entreprise. kon même déglu ma jigéen mi ngi may jàppale sax ci question bi tontu bi. Euh, euh, néeg bi société bi. Ah. mën nañ ñu ne benn la entreprise bi ki nekk ci néeg bi. mooy mooy xëy dem ci entreprise bi parce que même personne yi ñooy xëy dem ci entreprise bi. benn la benn la benn la benn la benn benn la eh. ça bu dee service oui ma société cercle la donc li nekk ci biir néeg bi moo jugee moo moo dugg ci biir société bu baax li ci biir néeg yi ñoom ñooy xëy dem ci ci entreprise alaaji alaaji alaaji oustaz mu baal ma des fois nga gis borom kër gu wàcc ak xadara waaw mu ñëw jabaram ni ko pëkk pëkk ni ko nijaay boo defee li dina ñaaw de te nijaay jollu ñaaw la naroon def ci entreprise waaw mais jabar ju baax a tax. waaw moo tax man ne la bàyyi la mu bi ci néeg bi lay baax. waaw mais xam nga sooy boole li mu wax ba mu demee ca néeg ba déet. kan waxu fa waxu entreprise ma nga ca beneen point. kan moom demee ci nekk yow kan moom demee ci nekk yow ma nga demee ci nekk boo demee ci nekk oustaz ma nga demee ci nekk ba kay ban néeg laa dem mais oustaz yaa dugg ci néeg oustaz dama lay laaj waaw léegi oustaz xam ne yaa dugg ci néeg ni moog jëkkëram danoo merewoo guddi jot waaw moog moog jëkkëram danoo merewoo voilà waaw man naa ngi ci nekk waaw yow loo jógee ci entreprise génnal néeg bi waaw te dama ci génn en tout cas génnal néeg bi dundal waaw mais war a dëgg war a dëgg parce que néeg mooy tax ñu ngeen di bëgg ci néeg moo tax am dëgg la. dëgg bu wér nag ci eh, eh, am na koo xam ne ca waañ wala bëggee non non non euh, bu leen diggalee ci waañ bi wala bu de ah. mais bu ngeen bëggee ci waañ di ngeen bëgg ci néeg bi ndax ci biir waañ bi dañ leen di jox ba seen biir fees seen xol féex bu ngeen jógee ci néeg bi ngeen gën a kontaan léegi su ngeen merantoo ci biir lal bi léegi yow yow waaw maa <laughs> man maa lay déglu ci biir néeg bi nga nekk ci biir lal bi nga mere sa jëkkër sa jabar mere la yow nga mere sa yow ku góor ki waroo mën a dem ñëw ci sa jabar wala sa jabar ñëw ci moom léegi loolu lañu ci charia wax te jërëjëf ah. xam nga lu am solo biir néeg point boobu la bëgg point néeg <laughs> non biir néeg dafa am am tuyaa bi ci ne waaw si dafa am tuyaa bi ci ne ma jigéen waaw jigéen ñi nañuy bëgg seen i soxna seen i jëkkër góor ñi ñuy bëgg seen i soxna yonent bi nee na. sallallahu alayhi wa sallam. dara dàqul. nga tëdd ba deux heures du matin. Mhm. sa jëkkër mere la. comme li nga laaj. Mhm. mere la. da koy neexal comme li oh, waaw lii nag la ñuy wax lii nag lañuy wax waxuma jigéen. Mhm. da ngaa war a moo ko pooj nee naa la ba tey. Euh, euh, euh, jigéen soxlawu ma ci moom jóge waaye moo ko pooj laa soxla. ci moom waaw da ngay neexal. a xuloo xuloo détail yu sew sewaat. yonent bi nag dama lu tuuti yaabu ci moom. dëgg la da nga koy neexal. neexal ko. ba mu ree waaye fexeel guddi googu bu bul mucc ci moom. Ah. wëndeelu bis boo góorgóorloo ba guddi googu nga bañ a mucc ci moom mënoo fexe ba doo ci am doom ju baax. Hmm. dara yàlla si saw bu ko yàlla si saw bu ko yàlla si saw macha allah nee na sunu waa jooju jàmbaar sunu référence sunu reykaay boobu. nee na saa xayru nisaay. iza nazarta ilayha sardatka. man seen oustaz man point bi ni nga ko mokkalee. waaw nabi nee na parce que da koo xam. nabi nee na sukaa. dara dàqul nga toog ba xaaju guddi. sa jabar ni la pëkk pëkk gis nga make up yi ngeen di def maa leen ko wax man oustaz leen ba ngeen waaj tëdd ngeen make up seen kanam ba mu rafet seen jëkkër xool leen amatu leen bàkkaar dëgg dafa neex waaw dafa rafet seen taar seen taar yi seen biir néegi make up bu <laughs> ma ne guddil leen make up maa leen ko wax man oustaz xayru nisaa dara dàqul nga xool sa sa soxna rek ñoo nga békk oh. nga kontaan xam ni yàqoo sa poche uh-huh. waaye ma jigéen am na ñoo xam ni seen bakkan yi moo raw rond point promenade Thiès waa ci ñaawaay. kon rëy na waaw Oustaz mais ki ñëw bindul ba Oustaz. ah mais man Oustaz yaa ngi duggaat ci beneen bi la. ah déedéet déedéet Oustaz. la loolu bakkanu jàmm Oustaz kon bàyyi bakkanu jàmm jàmm mais sooy nag mënta ñàkk am na yoo xam ne bakkan booboo koy daane mën na aw dëgg la nag. parce que def naa benn conférence. saa uh-huh. benn waay bàyyi ba conférence bi jeex. mu yëkkati trente mille jox ma. waa nga bël nga bël ma ko ne ma oustaz man ko naan mun ma conférence bi nee na defoon ko ah mun ma góor gu ne. la muy xool ci bëtam moo dàq ca moom. ma xam ne nag wax na dëgg. wax na dëgg la dëgg la góor gu ne. mais lu tax retenir waaw jox la trente hmm. nga lekk trente mille léegi yow dem bi mu la jox boo capté woon leçon bi. capté naa doo ci. parce que dafa am ma la la lu tax loolu. déedéet yow wax nga dugg ci neex mu ngoog la nga tey. mais néeg boobu ah, neex d'accord mais